alhamdulilahi rabbil alamin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi rawatina képp kuy jaamu yàlla suñu borom subhanahu wa taala ñun waa association ànd taxawu ñu wéré di te yàlla rek tax ñoo ñëw fii tey suñu vingt cinquième descente fii ci HLM fi nga xamante ni moom la ñuy wax Angle Mousse wax dëgg yàlla tey liggéey bi jéggi na dayoo jéggi na dayoo jéggi ci suba ba léegi li ñu toppatoo ci ay malade bari na waaye musu ba ñu dalee liggéey ci yàlla liggéey ci terrain bi ba léegi musu ñoo dajeek malade mental bu mel nii xool leen kii li nga xamante ni moom la sol xool leen ni mu mel ba ñu koy jël jéggi na dayo léegi feer yi nan la def ba moom mu ko boppam moom mu nekk ci biir feer yi nit ñi di ko romb mënuñu koo dimbali lan moo ko booleeg lii lu ko booleeg lii kon li ñu war rek mooy taxawu suñu moroomu jaam ñi te yàlla rek tax malade mental yi ci ñun la ñu bokk bu ñu leen di romb di leen wax turu dof ñii dofuñu li leen dal képp ku ko yàlla teg dina la dal ñun jég ñun jé ñun dañoo yéemu tey ci yàlla ñi nga xamante ni ñoo ñëw di seetu tamit yéemu nañ ci yàlla xool leen jëmm ji lii nga xamante ni moom moo nekk ci moom ay clé lañuy lañ koy deseeree ngir ñu mën koo libeere ci lii mu nekk nii xool leen li mu sol ñu ngi ko jële front de terre ak HLM sori na ñu jóg ngir liggéeyal yàlla te yàlla tax xoolal ma association ànd taxaw ñu wéradi kii nga xamante ni nee na lii mi ngi moom ñetti at ñetti at muy dund weñ yi kii metti na trop da yi nga xool mel ni musul am tey mooy sunu vingt cinquième descente mais lu mel ni mosuñu koo gis malade mental bu nekk daje nañu ak moom mais mosuñu daje ak malaat mental bu mel nii xoolal li nekk ci yaram bi mu seere ko ak ay clé yéen bu leen neexee bàyyi julli bu leen neexee bàyyi woor cey képp la fees Thank you. Bunun ile güvenki sanki dara değil. Buna yedin bu sanki var. Gelin bu ne yere gel. Bana da gel. Bana yere götürün bu sefer. Ama ne var? Bu ne var? Bu ne var? Politiği yapmamaya mı? dama solo. ani baas. xalaat nañu yeneen bouton yi war a dem. xoolal bii bu dee rek bopp bi dee. parce que daa muy am sens quoi. waaw bii moom am na sens trop. voilà voilà. as da nga jàpp trop trop. Bayas. ñaar bi warul ñu. ni ma laaj xool ni ma laaj wala nga jàpp. mu dox ah. waa ji di tegalu ko. di waa ji tegalu ko. defal fii bi defal corona bi yow kay la defal corona bi. corona bi. maanaam ana mën a yore woon. ana tërël. eh benn kaa ngi noonu xool leen fekk kaa la ngeen indi ko tànk rek eh bàyyi ko bàyyi leen ko bàyyi ko dinañ ko dinañ ko dinañ ko dab ah sëñ bàyyi bàyyi bàyyi ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma laa ilaha illa allah yóbbu leen yóbbu leen yóbbul yóbbul na le yóbbul na de jàpp leen mu dem jàpp leen mu dem kon li ngeen gis ni jaami yàlla yi di ko yóbbu nii moom la sunu baay booy bi solon ñu seere ko xamuñu kan moo ko seere mais lii seerelu ko boppam mu di ko doxaale ñaari nit attanuñu ko mu di ko doxaale fu mu jëm di ko yóbbaale. noo dañ lay solal yeneen mbubb dañ lay solal beneen mbubb. day door a firi fi mu nekk bàyyi ko tuuti mu jël ebe. may leen ko ndox mu naan ngeen jox ko mu lekk bu suur. kon. man abaloon am déedéet gars dama la taxawu ñu wéré di yàlla rek tax di def liggéey bu ama am solo di def liggéey bu am solo jëmm ji nga xamante ni moom lañu jàkkaar lool nii poids bi nga xamante ni yeboon na ko daanaka mat na cinquante kilos wala mu ëpp ko ñu seere ko ak ay boulon ndax nit war nañ koo mën a jëlal ay boulon di ko seere tàngoor wi di ko sonal guddeeg bëccëg subaak ngoon man xawma tey ñun ban senegal lañu nekk ñu ne senegal réewum teranga la ba noppi malade mental yi nekk fi nekk ay nit ba noppi sonn lool ñu leen di romb ñu sonn lool kenn du leen dimbali ku la ci romb rek nga ni dafa dof nga jël xeer sànni ko wala nga jël sa doom sa doom jël xeer sànni ko yow loolu mooy li lay bégal te ñii li leen dal li ki leen ko teg moo moo la teg yow dalu la kon maa ngi sakku ci àdduna maa ngi sàkku ci senegal képp koo xamante ni gis nga ku ñuy tuddee dof heure ndekki sa buntu kër wala sa koñ maa ngi sàkku ci yéen lillahi wa rasuli na ngeen leen jox ñu ndekki bu dee heure ndekki la te yàlla rek tax bu dee heure añ la jox leen leen ñu añ bu dee heure reer la jox leen leen ñu reer te yàlla rek tax yaa xadi kii leen ko mu dal dalal leen ko bàyyi dalal leen ko bàyyi man boo leen defee nii fële ngeen mooy yóbbu de xoole xiif ni mu mettee dem na ba tey kenn du ko tuddee doom mu heure ndekki jotee te ndekki woo yow mi ànd ak sa xel foo mën a dugg da nga fa dugg lijjanti loo ndekkee bu heure añ jotee noonu bu heure reer jotee noonu moom mii nga xamante ni suñ borom dafa wàcce ci moom tawatu wéri di xel ana bu heure ndekki jotee fan lay ndekkee kan moo koy jox mu ndékki bu heure añ jotee kan moo koy jox mu añ bu heure reer jotee kan moo koy jox mu reer xam ngeen ni kii wérul bu feebaree kan moo koy faj daf rek lañ tey suñu réewum Sénégal nag ñu jël suñu benn mala yaakaar ci moom deux cent mille moo fat ko suñu biir kër moo ñu gënal fat suñu moroomu jaam boo xam ni yàlla daa wàcce ci moom tawatu wéré di xel ba noppi ñu génne ko abandonné ko tuddee ko dof bi nañu leen ànd taxawu kii li ko dal yàllaa ko ko teg deful dara yàlla ba tax yàlla teg ko lii yow mi nga xamante ni dalu la ana lan nga defal yàlla ba tax yàlla defu la nii dimbali leen ko yéen rek bu ngeen fi yemoon mu doy sëkk ku baax kan moo ma ci mën a nangul rek ma laaj ko ndax mu mën a témoigner ci liggéey bi mu te yàlla rek tax nangul nga ma asalaamaaleykum wa rahmatullah sama baay yaa ngi en direct Facebook ci live bi nga xamante ni association ànd taxawu ñu wéré di dañ koy def tey fii nga xamante ni fi lañ ñëw muy HLM liggéey bii nga gis association ànd taxawu ñu wéré di di ko liggéey ndax baay liggéey bu mel ni mës nga koo gis. bi nga ko gisee lan nga ciy wax. man maa ngi sant di sant suñu ci fay. amiin yaa rabbi boolem jërëjëf baay bi nga gisee paa bi ni ñu indi ko. Hmm. ak ay weñam. lan nga sa ci lan la dem. sama yaram dafa daw. ndeysaan ndeysaan. ngi lay siyaar di la Abedam am question réponse Pape egg na. yaaram ñu ngi lay ziar. naka yi tey. waaw yow kañ nga fi ñëw ci taxaw fii di seetaan association bi. ay dix bi nga ñëwee lan nga gis. maanaam jëmm ji ñu génnee weñ bii nii nga xam ne si ni man mii man ci sama wàllu bopp jàpp naa ne chaque soirée damay entraîner te lu góor bi yenu lu nekk man jàpp naa ne man war naa koo yenu te lii nii weñ gi nii attanuma ko te suñu jëmm bële na la jëmm suñu papa jële na la ngay gis na la nga xam ne si ni boo ko xoolee di nga xam ne âgé na plus de soixante-dix ans mu yen woon lii ci jëmmam ñu seereel ko ko ak ay wiis yow maanaam yow ban réaction def ci yow émotion bi nekk ci yow lan la loolu moom bon analyse boobu daw yaram am na xam ne poids boo xam ne nag mag mun na ko mun na ko yóbbu comme comme xale am na benn poids mag mun na ko da nga boo waxee ànd maanaam yow nan nga liggéeyu association bi maanaam yow jàpp ne association bi tey jii nii Macky Sall moo leen fi yónni a dëgg la akasa kon léegi bàyyi boobu ñun dañ lay expliquer maanaam association bi lan la association bi association sociale la ànd taxawu ñu wéradi te yàlla rek tax du parti politique du état du len du kër sëriñ du kër diine bàyyi ñu ci benn tarixa ay jeunes lañ ay doomi Sénégal lañ yoo xam ne si dañoo dajaloo di dimbali seen i mbokki jaami yàlla yi te yàlla rek tax jëfuñu ko ngir jëmmi kenn dañ koo def te yàlla suñu borom rek tax jëmm yi nga xam ne si nii xëy na tey kenn ci association bi du mbokkam xamu ko xamul nan la tudd mais yàlla moo leen yabal ci ñoom ñu dimbali ko te yàlla rek tax kon ñun yàlla la ñuy jëfal association bi amul amul ci kenn benn parti politique boo xam ne si nii foofu la ñu basé wala benn kër diine boo xam ne si nii moo ñu yabal ñun association bi voilà ay lañ yoo xam ne si nii dañuy dajale seen i di ci dimbali jëm yii nii waaw ndax dañoo gis suñu réew Sénégal fii nii amul amul benn benn parti wala benn politicien boo xam ne si nii dina wax lu jëm ci ñoom moom la ñuy gis 24 heures sur 24 bu ñu jëm see ci nit xiif di ko ñu leen di buntu kër gu ñu fëgg ñun leen génn leen ci biti yow lool yow noo ko gisee ci réew suñu réew Sénégal ak nan lañ mën mënee jëlee loolu. loolu nag boo fokk état bi nag jàpp si nag euh, parce que lii moom lu bon bu baax la nag parce que technique bi xaw ma boo xamoo fan la jógee wax nga si nit ñi loolu nag bon lu ma lu ma si wax alhamdulilah leen gërëm rek. waaw. Hmm. ak sa baay booy loolu rafet na. parce que lii lu baax la. Agassa Baye Boy ñu ngi lay jaajëfal bu baax baax xol sedd na ci yow. rek ñu nekk ak ci live bi suñu Baye Boy bii Agassa ngeen ñëw nag jëmm ji ngeen xamante si ne yàgg ngeen a jàkkaarloog moom muy Baye Ass kenn dootu leen ko présenté Baye Ass ñu ngi lay ziar Baye Ass yaa ngi en direct ci live Facebook bi ñu ngi lay ziar instant bi xol dafa tooy waaw kon ñoo ko déggandoo instant bi nii xol yi dafa tooy kon xam naa ba ci kanam rek incha allah tey suñu président suñu président moom xool bi moo tooy ba mu mujj ta yeggale live en direct bi waaw kon gis ngeen ko liñ fi gis tey nag moo ñu yéem moo ñu yéem jëmu doomu aadama boo xam si ni dañ koo seere ak ay weñ ba mënta taxaw yéem na ñëpp yéem na ñëpp mais nag suñu borom moom nelawut mi ngi gis lépp amaana moom waaw bi mu koy teg jëmu jooju noonu dafa xam ne dina ko muñal te yàlla rek tax te ku yàlla fay ku nekk nga sant kon waaw ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla dindi ko jëlee ko ci natt boobu noonu rek agasa comme que yàlla dogal na mu tegu ci loxoy association ànd taxaw ñu wéré di rek ñu ngi sant yàlla bu baaxa baax ñu dimbali ko te yàlla tax yaaram bi ñu ngi lay ziar. naka yi tey. sant yaa ngi si jàmm bu baax a baax. waaw sant rek. Agassa yow liggéey bi yow ba nga sangoo instant bi nii ba toog xéewlu daal di taal sa cigarette xam nga daal door sa pile instant bii nii loo sentir yow. sant nga bu wér a wér. waa léegi looy wax membre yi nga xamante ni ñoom ñoo la doon taxaw daal lay sang jox la ay yére jox la nga xéewlu ba Agassa gis nga ko bi nga paree sax da toog fii nii di suivre liggéey bi léegi yow la nga ciy wax ci loolu noonu. foofu moom mooy mooy ñu doon liggéey bi liggéey bi liggéey bi ah waaw agasa question dañoo ñàkk sa fi ñu nekk nii quoi dëgg la Ndeysaan ñoo ko déggandoo gis ngeen koo nee na dafa am fenn foo xam si dafa doon liggéey maanaam après liggéey fi mu doon liggéey foofu noonu mujj na faa jóge kon loolu amaana mooy que ni ay genre naawtal la ay affaires yoo xam ne si nii ñun suñu réew Sénégal dañ koy faral di def ay xeex yi ci bureau yi xeex yi ci euh, ci ambassades yi xeex yi ci secteur de travail yëpp gars yi comme niñ koy defee nañu bàyyi loolu nañu bàyyi xërëmante bi ak liggéeyante bi loolu baaxul baaxul wax dëgg yàlla te dañoo gis que ni dafa bëri suñu réew Sénégal dafa bëri suñu réew Sénégal Agassas yaa soxna May ñu ngi lay ziar yaa ngi si jàmm yow maanaam yow yaa soxna may lan nga ci association bi yow ah dégguñu la nga wax ci kaw yaa soxna may dañ lay questionné yaa ngi ci live Facebook direct yow yaa soxna may yow dañ lay gis nii ba association bi dooree ba léegi mosoo tardé benn yoon wax dëgg yàlla yow sa boroom kër léegi soxna may moom maanaam nan la nan la gisee liggéey bi en tant que soxna di wàcc ci terrain bi di distribuer carte barkeelu yi di jàpp ci yére yi di jàpp ci liggéey bi te comme niñ koy waxee rek ba association bi avant association bi di am di am magasin avant association bi di am siège soxna May daal di jël bagage yi bagage yi association bi yëpp malgré li mu bëri bëri bëri bëri soxna May yaatal ko ci biir néegam daal di koy daal di koy xajoo uuf ko uuf lépp yaa soxna May yow maanaam yow noo gisee loolu yow yaa soxna May. sant ko yàlla liggéey moom kay kanam ba ci kanam rek dëgg soxna May sant nañ la ñu nit wax dëgg yàlla sant nañ la gërëm nañ la akasa léegi ñu ñëw ci bay pare yaram ñi ngi lay ziar. bàyyi lépp jàmm waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax borom baax waaw Baye Pathé ñu ngi lay siyaar bu a wér yi tey alhamdulilah Baye Pathé yow gis ci association bi maanaam dañoo bëggoon a xam Baye Pathé maanaam lan la a association bi waaw man bokk si ñi nga xamante ne dañuy ci terrain bi di xool malade mental abandonné seen position di leen jéem a récupérer ci base bi ñu egce jébaleen ñi nga xamante ne ñoo yor entretien général sa Baye Pathé loolu am na solo maanaam Baye yi noo leen di jàppe malade mental yi noo leen leen di jàppee ak euh, ci ban anam ngeen leen di jàppee malade boo xam si ni xamoo ko xamoo ndax dafa agressif xamoo ndax dafa yor ay arme xamoo lu mu yor malade mental bi nga daal di dem ci moom daal di am fitu ñëw taxaw ak moom koo xam si nii xamoo ko te xam nga ni malade mental la mën naa def lu ne te dara du ko ci fekk ak saa yéen loolu noonu nan ngeen ngeen koy dund ci biir terrain bi waaw man dama ko waxee am na suñu agressif ba si tey ah. ah bon yow maanaam noo dikkee malade mental bi ba bi dóor la. waaw moom sax daf ma bett. dëgg mhm. ma ko nag li ñu tax a jóg ci la commencé reporté wu bëgg a dem dinaa ko téye bu ñu ko téye nag mu dóor ma mais taxul ma fay xam naa la man mi mat naa ko nangul comme vraiment bëgg a liggéeyal yàlla man nangul kon négocier moom négocier moom ba indi ko mais man bu may dox di dem si ñoom sur le terrain bu ma la fekkee nga toog man maa daal sama branchement bopp. na xamaa ne même nit simple sax boo ñëwee fekk mu toog boo ko gëddee mu gëdd la kon boo fekkee malade mental mu tëdd da ngay ñëw disciplinement nuyu ko boo ko nuyoo nuyoo boobu rek après di nga mën a peese mentalam di nga xam ba xam kii mi ngi fi wala néew bu la fayee commencé waxtaan ak moom ba mu dégg nga waxoon nag li tax a jóg association bi te yàlla def na ñu ñu si bëri ñoo xamante nii bu leen expliqué li ñu tax a jóg rek dañuy nangu te yàlla tax amaana tamit yàlla moo ànd ñun ci liggéey bi duñu duñu duñu kiiwal jëm yooyu ba bu ñu ñëwee ñu nangoo ñu quoi mais ñu si bëri jafewul kenn kenn rek ñoo ci jafe daal. dëgg la dëgg la dëgg la léegi maanaam yow ba pare yow noo gisee.